الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم mbokk yi ñu ngi sant sunu borom noo ngi koy bàkk di ko kañ di julli di salmal ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi di ñaan sunu borom mu dëkkee dotti waamem xéwal ci kaw yonentu boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim mbokk yi nu ànd xam ni xew-xew yu doon xew ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yépp ay xew-xew yu màgg la waaye xew-xew ya daana gën a màggante la ko doon waral mooy xew-xew boo xam ni dëkk bi yépp moom la ñuy waxtaanee ba alquran daal di cay wàcc ñi di jàng aay yooyu ba tey loolu ku ko dégg même boo jàngut da nga xam ni xew-xew booba kon ndayewut woon bokk na ca xew-xew yooya nga xam ni am njàng la fees dell ci wàllu yar ak dégg ndigal ak moytandiku fitna bala muy tàbb ci sa kaw ak bu fitna tàbbee ci sa kaw nooy def ak nit ki bu mu jàpp ni tappale ak jubaleek wax lu amut moo koy génne ci jafe-jafe waaye jubal ak dëggu ko cay génne mooy xisab kaab ibni malik te bu ma nekk xisab kaab ibni malik mooy xisab ñett ñooñee nga xam ne ñoo tardé woon te kaab gën caa siiw te di leen tudd ci suratu tawba malik bi mu demee ba nekk mag màggat lool kenn ci ñi ko doon wër mooy nettali ne góor a ngi goo xam ne mi ngi màggat lool weex tàll ak ba jaaw nee na gone yaa ngi ko wër ak yenn ci ay mag daanaka yax yaa ngi fënax buy jóg sax day jafndu bët ya gisatut mu toog ni leen kaay leen ma nettali leen loo xam ne xewoon na ca saak ndaw ñëpp dal di toog di ko déglu mu ni leen ma nga amee woon keroog xeexab tabuuk xeexab tabuuk mbokk yi mooy xeex bi yonent bi mujjee xeex sallallahu alayhi wa sallam jamono jañ koy xeex nag jamono ju métti woon la jamono ju tolloog cooroon la nga xam ni naaj wi dafay tàng lool te xam ngeen naaj bu ñu dafa tàng ca Makka jëm Madina ay gën a tàng ndax ay dojo ko wër te foofa fu ngelaw di jaar luy sedd amu fa moo tax ba fi mu toll nii tey dafa tàng yonent bi saa sallam gaa yi seen tooli tàndarma yaa ngi bëgg a meññi mi ngi toll ci ñu witt ko nga xam ne nit ñi fi ne ñu ngi aajowoo keppaar geek meññeent mi di me bànneexu ca meññante ma di naflaayoo ca keppaar ga yonent bi daal di woolu saxaaba yi ni leen kaay leen ñu préparé dem Tabuk ndax dañuy xeex ak sunu noonu di dajale soldaar si ba am ñetti junney soldaar nga xam ne ñetti junney soldaar lu bari lañ ca lim waaye fan jëm moo leen gën a bari ndax fan jëm kat yoon wu sori la ndax Tabuk dafa sori ma dina lool yemul ca loola waaye noon bu soxor te bon ca lañ jëm ca moom yemul ca loola waaye jullit ñi seen lim dafa néew te it waxtu wi ñuy génn dafa tàng xeexat Tabuk rek bees ci doon wax dees na ci wax ay mbir yu doy waar yoo xam ni ci xeeti mettit ak tàngoor woo xam ni yeggoon na ba jullit ñi dañ doon rey ay gëléem ngir jël mbuus gi ne ci biirub gëléem te defum ndox di ko naan ndax tàngooru metti ak ñàkk luñ naan kon xeex boobu lu metti woon la kaab nee na jamono jooju kat waxambaane laa wu dëgër mën a dem xeex yor alal ju ma mën a demee jëndew fas ak ngalaa ba ko teg ak i yu ma xeexee waaye jamono jooju yëfi gone jàpp ma rek akuk càggante nee na ma topp ran keppaar geeg euh, taxawaalooy rek ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàggoo ni maa ngi dem ma ne noo amul problème man comme waxambaane laa man naa daal di gaaw dab ko nee na yonent bi dem ba ci suba sa ma génn ni xaara ma dem marché jënd samay bagages yi may jënd mooy yi may xeexee pour dem nee na ma dem marché nekkaat ci càggante gi rek ba bis ba jeex te jënduma la ma waroon a jënd ma ne amul problème ba subaati ndax waxambaane la bu bu rëppatalee aw fasam rek yegg mu ni ba subaati ca suba sa nee na ma defati noona ma ne xaaral ma jëm marché mu ni ma dem ba ca yoon wa am lu ma gàllankoor ma dëppati ba mat ñetti fan xam ngeen ni ñetti fan day fekk yonent bi romb na koy wéy ah nee na ba loolu amee ma daal di toog ne ba mu yàgg ma ne man nag def naa njaaxum njaaxum gi mooy yonent bi sa alayhi wasallam dem na a ah, xaaral ma dugg xool ko des ci dëkk bi nee na may wër ma Madina man daal ñaari xeeti nit laay gis koo xam ni dafa am ngànt ba lislaam ni ko yow mënoo xare ji kooko jeexal na ngàntam ñëw na wala koo xam ne am naafiq la ci dëkk bi mu ni man li ma war dëkk bi ba dëkk bi daj ku ma dajeel illaa dangay ngay nekk ab naafiq wala nga nekk koo xamante ni lislaam may na la ngànt ka nekk ab naafiq jàpp naa ne du sama nawle tey ka islaam may ngànt it man awma ngànt nee na yonent bi saa salaam yegg si nag ci tabuub ah daal di wàcce bagage yi ni saxaaba yi waaw ma ne daa mel ne am na ku ma gisut ana benn waay boo xam ne daanaka daa mel ni ñun rek nga xam ne ñun dañoo yàkkamti occasion bu ñu am ci suñ kaw mbokkum jullit rek ba waxal ko lu ñaaw ngir kooka gën a suufe nga gën a yéeg ñun melokaan woowu lañ yore waaja daal ni ah kooku de boo demee fi ne mantoom baa ko xam naa ma nga nekk ci dëkk bay saagar saagari rek di jaagar jaagari Muaz ni ko yaa bon looy seedeel sa mbokkum jullit yow fii nga nekk da ngaa xam lan la Muaz nekk lan la Kaab nekkee ragalal yàlla te nga wax ci moom lu baax yonent bi kii li mu wax du dëgg ñun kaab liñ ko xamal mooy baax yonent bi daal di sëgg noppi sallallahu alayhi wa sallam kon de Muaaz def na la ko war ak jullit bu déggee mbokkam jullitam ñu koy waxal lu ñaaw ak ku mën a doon défendre ko boo amee lu ñaaw loo koy wax wala loo koy yet demal ba ca moom nga waxal ko ko sa bopp yow bu fekkee yow mii liñ koy waxal gëm nga koyit it bul ko bul ko ko waxee foofa bàyyil ba nga wéet ak moom nga yeddee ko ko waaye noonu sawar na lool ci sa mbokkam jullit ñuy wax ci moom safaan ba ngay dëggal ak a yokk ngir sa ba gën a yëkkatiku waaye martabaam gën a wàññeeku ñu xam ne yëkkatiku ak wàcceeku yàlla moo ko yore subhanahu wa taala kaab nee na ba yonent bi paree ca xeex ba daal di nag ma dégg ni xeex ba pare ndax xabaar da doon wasaaroo ma dégg ni yonent baa ngi ñibbi si ma ni hey tey de def naa musiba nee na ma commencé ku ma yaakaar ni su ma demee ci moom mu xelal ma nee na dem naa ci moom ni ko waaw bu yonent bi yegsee nu may def nee na ñii naa bu yegsee da daw génn dëkk bi ñii naa bu yegsee da ngay fen ndax nga mucc ca kenn ku nekk di ma jox ay xalaatam nee na fa fa may waxee loolu rek yonente bi ni jaas yegsi ci Madina moom nag sallallahu alayhi wa sallam musaana yegsi ci jàkka ji lay jëkkee julli ñaar rakka fekk ko doon xaar mu fajal leen seeni soxla def yëf yi nga xam mooy yëfi julli ñi doog yegg këram nee na bi loolu yegsee rek gaa yi nga xamante ni ñooy naafeq yi tardé woon nga gis ñu commencé saagar saagar di génn seeni kër di yegsi koo ci seen rek ma nga kaalaw di ñëw accès ba ci ba óomu yonente bi sukk ci sallallahu alayhi wa sallam commencé di giñ te naan ñun kay dañoo amoon ngant ñun kay xam nga nangam nangam laya laya lay ba wër yonente bi yonente bi la kenn daaw ko nax bi hadihi l basata waaye tamit nag nekkuloon ku compliqué ngay wax mu ne fi naan ak giñal ak ah wóoluwuma la ak yu demee moom boo ko waxee day jàpp ne jullit nga doo fen mu daal di gëm loolu gars yi daal ni ko ñun kay nangam laya laya këpp këpp ko yonent bi saa salaam ni leen kon boog maa ngi ñaan yàlla yal na leen yàlla jéggal jug leen ngeen dem amul problème ah gars yi jug kontaan lool dem nee na Kaab daal di yegsi nee na bi ma yegsee yonent bi ni siggi ni jàkk xool ma ma xool ko yonent bi muuñ sëgg ci laa ne musiba am na tabassumal mughdib loolu la arab yi tuddee muuñ ak ku mer léeg-léeg da nga gis nit ngay wax ak moom mu siiñ la mbaa mu muuñ la fekk mi ngi la logal ci mer loo xam ne yàlla rek xam boo xàmmewut yooyu nag mën ngaa tàbbi ci jaaxum moom la waykat nan fa laysu yabdu naabuhu is yagdab bul gis ku lay siiñal rek nga yaakaar ni kooku daa kontaan ci yow ah mu ni fa inna summa fi l asal mu ni ndax lem li muy neex neex ma ne sa caa dugal tooke mu teg ci ni gaynde de moom fa laytu gaynde yabdu naabuhu ay sellam keroog ba muy feeñ muy is yagdab jamono ba mu meree waaye saxaaba yi ñu comprendre la ñu woon yonente bi sallallahu alayhi wa bi yonente bi muuñee rek xam ngeen ku muuñ daa war a kontaan ci la kaab ni def naa musiba ndax xam naa ne mu gi du muuñu ko kontaan waaye muuñu ko mer la nee bi loolu amee ah ma daal di toog yonent bi ku ku teeyoon la te mën a jàngale tëbul rek dal ci kawam dane ko waa kaab kaab foo nekkoon bi ñuy dem tabu kaab xanaa du yow moom amoon nga loo mën a jëndee sa say sa saw fas ak say jumtukaay lu tax ñëwoo ca xare ba kaab ni ko gis nga yonent bi yow xam nga ma bu baax xam nga ni man ni ma ni ma bocceekoo aw làmmiñ te wax na dëgg ku mënoon way la kaab dafa dem ba àddina bi yépp dañ doon déglu ay wayam ndax ni làmmiñ wi boccee mu ne ko yow xam nga ni su ma toogoon ak keneen ku dut yow mën naa wax ba génn ca yow yonent bi xam nga loolu te it su ma la waxtaanee waxtaanelee su ma la joxee aw lay woo xam ne dama caa fen nga kontaan ci man damay tiit après yàlla mere ma ca loola te su fekkee wax naa la dëgg maa ngi tiit nga mere ma xool naa ba xool nag ma wax la dëgg nga mere ma te yàlla du ma mere te it ma wax dëgg bañ a fen moo ma gënal lu ma mën a am gis nga yonente bi neexut ba neexut waaye benn ngant laa amut saay bànneex ak saay caaxaan laa toppoon ak saa càggante ba yëf yi rëcc ma donte nag maa ngi jéggalu yàlla ndax yëg naan li ma def musiba la ah bi loolu amee yonente bi salaa salaam daani geesu saxaaba yi ne ah kii de moom wax dëgg yàlla wax na dëgg nag moom seen mbokk mi faqat sadaqakumul xadiis wax na dëgg waa jógal dama nga toog sa kër nga xaar ba yàlla wax ci say Kaab nee na muuñ nga bi ma ko booleeg bi ma yonent bu waxee wax yooyu dafa mel ni mbir mu ñu rës ci sama kaw ndax biñ ne ma demal toog xaar yàlla wax ci say mbir xam naa ni kon faaw alxuraan dina wàcc ci man te alxuraan bu wàccee mën naa wax ci man musiba ni ma naafeq ngaak ñoom dañ doon tiit yooyu mooy alxuraan ni la naafeq ngaak wala baaxoo wala yu demee noonu ah nee na bi ma waxee loolu ma jóg di dem ñenn ci saay mbokk mooy mbokki dara di daal di koy dab ni ko yow yaa dof dëgg dëgg yow juróom fukki nit yépp gis nga leen ñoom ñëpp lay nañ ay lay ba génn ci dem da ngaa mënul woon a def ni ñu def yonent bi mu ngi nii jéggalul na leen te yow xam nga ne ko yonent bi jéggalul yàlla baal la mënoo woon a wax wax la gaay wax fa hal laa tadarta bi uzrin yow ni nga boccee koo aw làmmiñ xam nga ni man ngaa créer aw lay ba lay wi jub mënoo ko woon a def nee na ñu commencé di ma waxal di ma waxal ba ma commencé naan xaaral ma dellu sax weddi la ma waxoon nee na bi ma naree def loolu fa ma amee ndimbalam suñu borom sama xel dem ci man waaw te maa ba xam mbir yi man kese la wala ma man ak keneen la ci la laa ni waaw est ce que man am na ku def li ma def ñu ne ko waaw am na ñaari nit ñu def li nga def muy muraarata ibni rabi ak hilal ibni umaya nee na fa ida huma rajulaani saalihaan ma gis ni kat ñaar ñii ñu ma wax ni ci li ma def lan bokk ñaari gaa yu baax lañ te it bokk nañ ci waa badar kon man ragalatuma fi mu nekk nii mu ne du delluwaat mbokk yi wax wax wax mu ne du delluwaat ci yonent bi dëggam googee dana ko jëriñ mbaa mu lor ko waaye ca lay yem te loolu mooy jullit ab jullit lu mu mënti dugg lu mu mën a doon gendarmerie lañ la woo dig lañ la woo fu mu mën a doon waxal dëgg wallahi dëgg ak lu mu yàgg-yàgg même boo nekkee ci jafe-jafe moo la ciy génne gis nga fen même bu la musalee tey am na fu mu lay xaar ëllëg ñu bari ci nit ñi tey bu ñu jàqee rawatina bu ñu leen wooyee ci yoon moo xam tribunal la moo xam dégg la moo xam fu mu mën a doon da ngay foog ni tey nga wax aw lay ba fen ba génn ca ngir ñooña gëm la mooy tax nga mucc ca mën nga koo def ñooña gërëm la bala waaye fekk yàlla mi ngi la ba mi ngi jàpp mer moo xam ni mi ngi la mere am mer moo xam bu ko sàbbalee ci sa kaw rek musiba dal la moo tax dëggu mbokk yi mooy musal nit ki ak foo mën a nekk boo dëggoo même bu dee da wax dëgg ñu tëj la yëgal ni tëj googa punition la bu la suñu borom teg waaye yàgg-yàgg dëgg dana la musal nee na kaab nee na ma daal di génn ah daal di jëm sama kër nee na bi ma demee sama kër ma gis ni ñu toog ab diir rek yenente bi daal di ne saxaaba yi leen fekk ma jàkka ja gaa yëpp fekk ko jàkka ja mu ni bis ni ki tey kaab bu kenn waxateeg moom allahu akbar xoolal madina ak ni mu rëyee ñi fa nekk ñëpp di ñu gëm yàlla te yonent bi di seen njiit yonent bi ni leen muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw kaab ku mu rombati di wax ak moom bul ko faale muraarata bni rabia ak umayata ñoom ñëpp ku ci rombati di wax ak yow bul ko faale bi loolu amee kaab nee na mu mel ni nag ay montagne musiba lañ këpp sama kaw nee na may dox ci marché bi fala yukallimuni ahad nee na kenn du wax ak man ku ma waxal dooma faale ndax yonent bee joxe ndigal loolu nee na wa tanakkara lana naas mu ni man damay xool nit ñi ba mu yàgg ma naan waaw ñii est ce que ñoom laa dëkkaloon avant mbir mi di wàcc maanaam nit ñi dafa mel ni xamatuñ ma xamatuma leen mi ngi mel ni benn waay boo jël rek wàcce ko ci dëkk mu nekk fa étranger xamut kenn nee nit ñi noon lañ mel ci man mu ni wa tanakkarat lana alxiitaan mu ni même bu ma demee ba jege sàkketu jàmbur sax mun day mel ni sàkket wi du sàkketu bàyyi diw ma xamoon day mel ni sàkket wi day gën a àndu di puus ngir bu ma ko jege nee na mu dem ba mu yàgg watadakkara lana al ard nee na damay xool du ma am ku ma waxal ma sëgg ci suuf si gis suuf si mu mel ni suuf si moom it day gën a noox di jëm ci suuf naan ma sori ma may it xamatuma la nee mbir mi am jural mag jaaxle lool nee na sama gars yi ñoom ñaar nag muy muraarata ak umayya wala hilal ibni umayya nee na ñoom ñaar moom danoo génnul sax faf nee na ña nga seen biir kër yi di la ko jooyal jooy yu metti yoo xam ni génnatuñ sax fa fenn ñoom foo leen fekk rek ñu ngi jooy suba di jooy ngoon mun yabkuuna layla wan nahaar guddeeg bëccëg rek ña ngay jooy ngir musiba jiñ def ak li leen bi teg sallallahu alayhi wa sallam na ngay jaamu yàlla mel ni ay labbe mu ni man nag munuma loolu parce que booba gone laa jeune laa toll ci waxambaane ñee nag ay mag lañ mu ne man nag xale bu góor laa kon faw ma génn même lu ma ci jëlee lu metti metti danaa génn nee na ñoom ña nga tëju seen i kër man may faral di génn di xool nit ñi ah nee na ku ma jub rek nga randatu sori ma jotaay bu nit ñi toog ma ñëw di waaj a toog rek ñu fëx seen i bagage jug dem seen yoon nee na bu laaj laajte nit ñi damay daje koo xam ne sama xarit la woon may wax ak moom du ma faale ah nee na ma ne amul problème lu metti metti naa ko muñ rek dëgg la metti na ci moom waaye moom doon na ñëw ci jàkka ji di julli si nee na bu ma ñëwee di jàkka ji julli si damay bërëx bërëx ba fexe rek ba jege yonent bi sa sallam ngir ndax yonent bi ni mu laabiiroon la xam xëy na laa biir gi dana tax yonent bi wax ak moom ndeke yonent bi saasam ay sentiment ci boppam amut ci mbirum lislaam maanaam su dee mbirum àddina bi am nay sentiment waaye bu dee ci mbirum lislaam moom déedéet nee na damay jege yonent bi léeg-léeg ma riisu riisu lu ko nee na yonent bi du ma faale nee na man su ma kàbbaaree di julli nga xam ne maa ngi sëgg concentré wu dinaa sentir ne yonent baa ngi may catal bët di ma xool waaye su ma siggee di ko xool rek mu ni mu fel kanam gi bëgg bëgg maa wan ni man xooluma la sax maanaam mi ngi ko doon xool ngir bëgg xam kii nu mu def waaye nee na su ma siggee xool yonent bi rek yonent bi fël kanam gi pour bëgg ko wan ni ko man xooluma la sax ah nee na bi loolu amee métti di di wàcc sama kaw nee na ma continuer noonu rek man li gën a méttil mbir yi mooy kaab nee na man kilifa laa woon ci dëkk bi bu doon ci dëkk tey bu doon ci waxinu tey dañ notable nga ci dëkk bi ci notable dëkk bi la bokk yemul ca loola waaye kaab ci boppam nit daan jóge dëkkam ba Madina ngir naa gis kuy kaab kan mooy kaab ndax kàddu yu ñor yu yu fasan yu feccee ko yu yu boy yi muy wax ci way loolu ba ba nit xanaa lii ki koy way jinne la nit ñi dañ daan dikk ba madina di ngir yëre si kan mooy kaar nee na man kon kilifa laa te nit ñi soxlañ nañ maa gis nee na sama woy dem na ba dëkk àddina bi yépp xam nan ko nee na may dox ci madina kenn du wax ak man benn bis yëf yi metti lool far beneen musiba wadd si sama kaw musiba ji mooy lan nee damay dox ci biir marché ba mu yàgg ma gis benn chrétien chrétien bi naan eh, yéen xamu leen fi benn waay bu tuddu Kaab nee na ma gis mbooloo mi sëkkatoo ko ndax information bi dafa tas ñëpp xam nañ ni Kaab dañ koo abandonné kenn waxatut ak moom ba ci yonent bi saa salaam ah nee na mbooloo mi jiital ko di ko indi ci eh, Kaab ibni Malik nee na biñ ma indee ba mu yegg si ci man mu ne ma jabb ab leetar boo xam ne ci der lañ ko bindee ma tàllal leetar bi leetar bi daan ne buur bi nekk fële day Gassaan ab buur la woon buur boobu. nee na yow kaab yëg naa ni sa waaji kat gis nga sa waaji lay wax yonente bi mu ni sa waaji kat moom daf laa bëgg a toroxal te yow kilifa nga yow xanaa da ngaa fàtte nit ñi niñ la wegeeg niñ la ormaale yaa ngi dox madina kenn waxut ak yow yonente bi nga duggoon ci lislaam ngir moom nga dem ba mu yàgg moom waxatut ak yow man daal maa ngi ubbi samay porte boo yegsee ma boole la ci ñi ma gën a jege ci biir nguur gi allahu akbar kaab nee na damaa jàng leetar bi rek daal di yuuxu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nun de ci yàlla lañ bàyyikoo ci yàlla ñuy dellu musiba dikkati na ndax xam ngeen ni mbokk yi comme ni ma ko waxee ci xutba ji weesu bari waa na gor gor bu jaay ngoram rek boo toppee gëstu da ngay fekk jamonoy fitna la jamonoy jafe-jafe ndax jamonoy jafe-jafe fëkk nit ki dafa dafa yomb moom kenn waxatut ak moom kër kum dugg mu ni ko génnal kenn du ko seet si même bu dajeeg yonent bi ci jàkka ji yonent bi du wax ak moom xam ngeen ne loola jàpp naa ne kum doonoon ku nekk lu gën a ndaw rek mën na laa fëkk dem nee na bi loolu amee ma ni lettre bii du ma ko liiraat sax ñaari yoon ci laa ko xotti rek dem tàbbal ko ca biir fuur ba nee na bi ma ko tàbbalee foofa ca biir fuur ba ci laa daan ni ah seytaane nag mi ngi ma commencé njat ndax kee buurab yéefar la kon man ndekete yéefar yaa ngi may soxla man de yéefar yee ma soxla waaye man yonente bi laa soxla sallallahu alayhi wa sallam nee na bi loolu amee ma sànni leetar ba waaye continuer di def li may def ku ma dajal di nuyu nuyulu moom daroon daroon def xanaa daroon sonde rek di def sondage ku ma dajal nuyu nuyulu ko faale léeg-léeg mu ñëw seet si kenn ku nekkoon xaritam fëgg-fëgg waa ji ni këj du ko faale te xam ngeen loolu mbokk yi métti mun koo paase amul ku mu doon waxal moom Kaab ibni Malik noonu bi affaire yi amee ñeent fukki fan nee na damaa toog sama kër ba mu yàgg rek ma dégg ku fëgg ma ni kookan la mu ne yonent bee ma yónni nee na ma ni bëri kontaan jàpp ni kon kay xanaa xéewal ñëw na ndekete waa ji lam nar a indi moo gën a nekk musiba waa ji daal di yegg si ni ko yonent bee ma yabal nee na séparé wul ak sa soxna. soxna si na dem nga dem ah mu ni waaw ndax dafa wax ma fase ko wala ma ma ma ma séparé wu rek mu ni man daal xaw ma dafa wax nga fase ko xaw ma daal nee daal na ngeen séparé ku ne rek na dem mu dem te mbokk yi soxna si moo doon ci kër gi soxna si moo ko doon fóotal soxna si moo doon yar li mu jur ci ay doom mu woo soxnaam ba mu ñëw ni ko ah musiba da ñëwati na kenn laa dese woon ku may mën a waxal muy yow ak samay doom te yonent bi nee na nga nga dem seen kër seet nañ séparé wu ah soxna si moom it booyee li ko neex ak li ko naqari takk ay bagaasam jóg dem nee na bi loolu amee yonente bi yónnee ca gaa gaayee ca des ñaar ña ma àndal Hilal ibni Umayya ni ko yow it soril sa soxna soxna Hilal ni déedéet loolu mënul nekk daal daw ñëw ci yéen sa salam ni ko gis nga Hilal ibni Umayya màggat la boo xam ne buy jóg sax day jafdu kooku soo ma waxee naa ko sori gis nga su ma ko fa bàyyee boo muy moytul mu dee teeg maa dimbali ma di ko liggéeyal yonente bi ni ko may naa la dee ko liggéeyal waaye nag bu leen àndati nekkatu sa jëkkër maanaam daal li doon dox diggante jëkkër ak jabar bu mu doxati seen diggante mu yónnee ca ka des tamit wax ko ko bi amee nee na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam continuer ca ca loola ñaar ñële moom ña nga seeni kër di jooy mu ni man nag maa ngi continuer jéem rek man daal fu ma jàpp ni daal su ma fa waxee danañ ma wuyu ma continuer di fa wax nee na benn bis sama xel ni yar ci saa xaritu benn bakkan comme ni ko la yi waxee xaritu benn bakkan nga xam ni kooka moom ak lu metti yëf yi metti metti metti boo jaaxlee ci moom nga war a dem ndax xaritu xarit dana yegg foo xam ne dañuy wax ne doomu ndey sax du fa yegg comme ni ko wala fiy léebee mu sama xel ni yar ci abu qataada ndax benn sama xaritu benn bakkan la ñaareel bi sama doomu baay la ay doomi baay lañu woon moom kaab ak abu qataada nee na ma dal di sol sama yére rek fëxër daw dem jaakaar ni su ma demee ci moom xëy na moom dana tane nee na ma dem këram ñu ni ma néewu fa ma dem tool ya fekk ko fa bi ma ñëwee fekk ñu tëj tool bi mu ne damaa tëb ñag bi bi ma tëbee ñag bi ma ñëw fekk abu qatada ci ron garab gi ma ne ko salaamaaleykum yaa aba qatada mu xool fële faale ma ma tollante waat salaamaaleykum ya aba qatada mu ni mu xool fële faale wu ma ma ni waaw ma ne ko abu qatada yow xam nga ma xam naa la est ce que yow seede nga ni man gëm naa yàlla akub yonenteem abu qatada ni ci yàlla mu ne Abu Xataada xam nga ma xam naa la est-ce que gëm nga ni yow man gëm naa yàllaa ko yonenteem Abu Xataada ni Thiel mu waat ko ni ko est-ce que xam nga gëm nga ni yow man gëm naa yàllaa ko yonenteem Abu Xataada ci la ko doog a tontu ni ko ah boo gëmee yàlla yàllaa xam boo ko gëmul yàllaa xam man xaw ma ci dara nee na bi ma waxee loolu mu mel ni bomb lañ ma dóor sama rongo yi commencé sa tatati ndax fenn foofu rek laa dese woon ci yaakaar foo xam ne defe naa ni su ma fa demee ndax bi may dem maa ngi daw aw xel ngir jàpp ni kooku moom dana tax ma génn ci musiba yi nee na ba mu ne ma gëm nga yàlla boo gëmee yàlla boo gëmul yàlla yàllaa xam rek rangoñ yi tàmbalee sa tatati ndax la ko waral mooy fi mu ne nii dem naa ba sama ngëm yàlla ak nit ñaa ngi ciy sikk sàkk mu ne man kon wóolatuma sama bopp nee na ci loolu ci laa daal di continuer amatuma ku ma waxal nag ndax soxna saa ma doon wéttali ma ñëw ci kër gi léegi man rek ma daal di fay toog du ma wax ak kenn nee na yàlla dogal bi si dem ba mu am 50 jours juróom fukki fan nee na ca juróom fukkeelu fan ba rek alxuraan daal di wàcc nag léegi nag ñëw pour régler situation bi ca guddi la alxuraan ja wàcc ca guddi juróom fukkeel ga fekk yonent bi keroog mi ngi ayee ci soxnaam bu ñuy wax ummu salama ah yonent bi daal di mel nam doon mel ñaq xam ngeen bu du alxuraan da waaye di ñaq too xët bay siit même nekkee nit ñi dañoo nekk ci sedd ummu salama ne li ko lu xew yonent bi mu ne ko abu xata kële day kaab day la yàlla wàcc ay aaya di ko setal tey jéggal ko bàkkaaram nee na Ummu Salama nee na ma ni bërit sol saa yére daan yonent bi dimbali ma rek ma dem bégal ko ko ci guddi gi tey tey tay ndax kontaan ko loolu la boroom xam-xam yi naan idxaalu surur ila qalbi axika al muslim fexe dugal mbégte ci sa xol mbokkum julit loolu ci jur liy jur tuyaaba la bokk Ummu Salama nee na ma sol sama yére yonent bi may ma dem wax ko ko ci guddi gi yonent bi ni ko déedéet fi ne situation yi ni mu méttee boo jugoon fi ne siiwal ko ci guddi gi kenn du nelaw ba fajar ndax wax na dëgg soppeem yi ko doon bañ a fay nuyoo it wax dëgg yàlla fayuñu ko ngir dañ koo bañ waaye dañ koo bañ a fay ngir yonent may joxe ndigal te bu yonent bi joxe ndigal moom kenn dootul xoolati say bëgg-bëgg noonu nee na ñu daal di fanaan ba bët fajar jot rek yonent bi daal di may jox ndigal ma yëgle ko ma am ku ma yónni ni ko dawal gaaw boo demee nga yëgal ko ab euh, kële kaab nee na nit ñaa ngi julli si fajar mu ni man fajar gi yëf yi dafa dafa dem ba daanaka léeg-léeg sax ma tardé jàkka mu ni maa ngi yéeg ci benn kaw montage bu leen ak suñu kër di fa jullee fajar nee na man daal bi may julli fajar ba mu yàgg rek laa dégg benn waay bu naan abshir yaa kaab bégal yow kaab te fekk fa mu doon wootee fu sori la ndeke am na keneen koo xam ne rëppatal na aw fasam moom it di daw dikk ko yëgal si mu ni fas wi ak kaddu gi ñu ngi njëkkante waaye kaddu gi jiitu nee na ba ma déggee bégal yow kaab rek laa sujoot man man xaarul ma sax lan lan moo xew ne damaa dégg ñu ni bégal yow kaab rek ma sujoot man ca saasa sant yàlla bu baax a baax nee na bi ma yàlla ba noppi daal di jóg sol saa mbubb jëm ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi ma jëmee kër yonent bi ma ñëw fekk yonent baa ngi ci jàkka ji saxaaba yaa ngi ko wër nee balaa may yegsi nag waa ji bi mu yegsee fekk may julli mu ne ma bégal yow kaab ma xaar ko ba mu yegsi mu ne ma yonent bi saa salaam dañ nee na alxuraan wàcc na yàlla mi ngi lay setal tay nee na fa tàng-tàng ba rek laa summi mbubb mi ma soloon rek sàngee ko ko mu ne wallaahi keroog bi ma koy may mbubb mi wóor na ma ne yëre yu baax yu ma mën a génnee aw ma ko mu ne àbb mbub moo xam ni mën naa koo sol doog a génn waaye mbub ma ma ko joxoon mooy mbub mu baax ma ma sol mu daal di koy maye ndax kontaan nee na bi ma dikkee fekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu toog ci jàkka ji nee na gars yi daal di may séen ñoom ñëpp commencé di geesu nee na benn waay bu ñuy wax talxata bnu obaydillah daw rek ndeysaan yuuxu song ma gis nga mbokk yi nit bu nekkee ci jafe-jafe nga soutenir ko jàppale ko dimbale ko ba mu génn ca bu dee gor la ba keroog muy sukuraat du ko fàtte talxa faatu na ay at yu yàgg kaab day toog ba mu yàgg mu ni cey ay waay waay talxa keroog de jug ba mu jugoon song ma du ma ko ko fàtteel ba keroog ñu daje pentam pencam yàlla lan moo waral loolu mooy mi ngi ci ay jafe-jafe jàkka ji ñépp ñu ngi toog kenn ñu waaye ñu ngi koy gestu di ko xool nag waaye talxata daal di jug rek daw kott ko saan di jooy ànd ak moom ndax kontaan ndax léeg-léeg kontaante dana waral jooy nee na mu daal di jooy tatafu yonente bi day nee na alquran ju lay setal wàcc na mu ni fa wallahi lan ansaaha li talxata mada dahar fii ba àddina bi tukki nee na daw gam dawaan song ma kott ma du ma ko ko fàtteel ndax daf maa fekkoon ci ay situation yu diir yu metti nee na bi loolu amee ma yegg si xool yonente bi yonente bi sigg rek ma seen xar kanam gaa kon tan kontaan lool sallallahu alayhi wa sallam nga gis lex yi mi ngi fet feti sallallahu alayhi wa sallam ci ni mu leeree woon xar kanam ga ni mu meloon nee na ma xam ne yonent bi kontaan ndax yonent bi mos nañ koo xam ci saa bu kontaanee rek ci xar kanam gi nga ko njëkk a xamee ndax ni muy belbelee nee na bi loolu amee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko waaw bégal yow kaab keroog bala sa yaay juree ba tey amul bis boo xam ni am nga mbégte mu toll ni mi nga am tey mu ni ko ah mbégte mi ci yow yonent bi la bàyyi ko wala ci yàlla ne mu ni ko ah mbégte mi nag bàyyi ko ci man ci yàlla la bàyyi ko yonent bi daal di koy jàngal aaya bi ko jàngalee aaya mu ni ko gis nga yonent bi tey de am naa mbégte lool kontaan na li lay wan ni kontaan na mbub ma ma baax le woon maye naa ko tey damaa bëgg a miraas sama bopp mu ne ko tey damay miraas sama bopp lu ma amoon lépp laa bëgg jël joxe ko fii sabilillah pour wan yàlla ni ko kontaan naa ci li nga ma defal tey allahu akbar bi loolu amee yonente bi ni ko déedéet am sika alayka baada maalik téyel sa alal booy joxe joxeel leen li nga téye li ci des loolaa gën mu ne ko du ma yem foofu de yaa ngi fàttaliku juróom fukki fan ci gannaaw keroog ba ma ñëwee naroon naa fenn waaye ma wax dëgg mu ne gëm naay wax dëgg moo muccal mu giñal yonent bi ci yàlla ni ko ba keroog may faatu kàddu gudu dëgg dootul génn sama gémmiñ ndax gëm naa ni dëgg moo ma musal tey kon dëgg dana kon ni di ma musal ba keroog yowmal qiyaam bi loolu amee mu daal di génn dem yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di jàngal saxaaba yi aaya mooy borom bi sootala fi muy wax ni laqad taaba allahu ala annabiyi walmuhajirin wal ansari alladina tabacuuhu fi saacati alusra min bacdi ma kaada yaziigu quluubu fariqin minhum summa taaba calayhim liyatuubuu innahu bihim ra'uufu raxiim wa cala althalathati alladina xullifuu حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم soo demee ci suuratu tawba sunu borom mu ne yàlla de baal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baalaale muhaajiroon ya ak ansaar ya ca keroog ba nga xamante ni àndoon nañ ak yonent bi moo ñu lu ñu def ñooñu defuñ dara ndax ñu àndoon nañ ak yonent bi dem loolu la borom xam-xam yi sukkandiku ni kon ndeke nit ki du caagee dangaa ngaa def dara rek moo tax ngay jéggalu te du da ngaa def dara moo tax ñu lay baal mën ngaa bañ a def dara di jéggalu te mën ngaa bañ a def dara tamit ñu baal la ndax yàlla moom moo xam la yëf ya ca la ca biir ñoom ñi nga xam ne topp nañ yonent bi ca jamono ja nga xam mooy saatul usra jamono ju métti tàngoor yu métti lool ba jéggi dayoo léeg gis benn waay di wax ak yow doo mën a dégg li muy wax ndax mar la def ba Omar ibn al-Khattab bokk na ci ña doon junj saxaaba yi nañ rey gëléem yi ndax gëléem am na mbuus gu rëy rey goo xam ne bu naanee ba maan day denci ca biir ñu ne nañ leen rey lekk yàpp yu naan ca meew ma daal di jël ndox ma jëfandikoo ko noonu bi mu amee mu ne min baadi ma kaada yuziigu qulubu fariqin minhum am na ñoo xam ne dem nañ ba seen xol yi di waaj a dagg ndax tàngooru metti ak fan jëm ni mu sore nee na summa taaba alayhim yàlla mu ni baal naa leen ndax innahu moom sunu borom bihim raufun rahim ku am ñeewante la ci ñoom ku am yërmande la ci ñoom sunu borom mu teg ci ni mun wa ala thalathati ah yàlla tamit baal na ñett jooñee nga xam ni xullifu alladina xullifu ñoom it ñëwuñ woon hatta ida daqat alayhim al ard ñu seere leen ci madina kenn du wax ak ñoom kenn du leen tudd kenn du leen taas suñu borom mu ne xatta ida daqat alayhim al ardu bima raxubat yàlla mu ne dem na ba suuf si dafa xat ci ñoom te mbokk yi xoolal loolu seedeb suñu borom la maanaam dem nañ ba mesure bi ngay jël madina madina ni mu yaatoo suuf si madina dafa dem dafa xat ci ñoom ndax ñoom gisatuñ kenn kuñ wax ak moom ndax waxatoog nit ñi faaleetun la duñ la dimbali do koo nuyu du la fay mu ne léeg-léeg danaa fekk yonent bi nuyu ko may sikk sàkk est ce que bi fay na ma wala déet nee na moom ku ma dajal ni ko salaamaaleykum du ma fay waaye yonent moom dama doon sikk sàkk est ce fay la way parce que dégguma lu ma xam yàlla mu ni dem nañ ba daqat alayhim wal ardu bima raxubat mu ni wa daqat alayhim anfusuhum dem nañ ba ñoom ñu jéppi seen bopp bëgg maanaam bëggatuñ sax seen bopp kaab nee dem naa benn bis ba mu yàgg ma ni billaahi lii ma deewoon sax bañ koo fekkee moo ma gënal ne ko lu mu ni man fan yooyu su ma faatu woon est ce que yonent bi mu ni déedéet bi kon du ma jullee ndax daf maa jéppi mu ne man su ma faatu woon ndax yonent bi dana ma miraas mu ni déedéet kon yonent bi daf maa jéppi mu ne yooyu su ma ko xalaatee day mujj damay bëgg sax dee comme la Mariam dana wax yaa laytani mittu qabla hada dee woon avant tey moo ma gënal lu ma mën a am nee na bi loolu amee mu ne wa zannu an la malja min allahi illa ilayhi teewut nag ñoom gëm nañ ñi foog nañ ñi njortu nañ ñi am nañ kóolute ci ni mënuñoo mucc mbaa ñu am euh, situation yii ñu génn ci lu dul yàlla moo leen ci génne bañ xamee loolu sunu borom ne summa taaba alayhim yàlla ne na ma jéggal leen li yatuubu ngir ñoom it ñu baalu waaw ñu baalu ngir yàlla jéggal leen sunu borom ne inna allaha yàlla kat huwa tawaabu rahim mooy ka nga xamante ni mooy baalaa kon muy jéggalaa kon ba aay bokk na surtout tawba yàlla andi nag ña nga xam ñoo waxoon bañ ba génn ca wax nañ ba génn ca juróom fukki fan teg nañ ko ñu wax ba génn ca di door daa xeeg ñépp waaye ba juróom ba alquran ji ñëwee sa tal kii nga xam ne mu nga moo waxoon dëgg te ci jafe-jafe alquran ji wax na lu tar te tàng ca naafeq yooyee nga xamante ni ñëpp dañ leen a gën a sib ca loola kon yëgal ni fen bu la musalee tey bis dana ñëw mu talaat la yëgal ni bokk na ci liñ ci mën a jàngee mooy ab julit fu mu mën a toll nay muslu ci yàlla sunu borom bàyyi ko lu tolloog gaawaayu xef wala lu ko gën a yées ndax su loola amee man ngaa tàbbi ci fitna te fitna mën naa nangu sa diine bàyyil xel ni saa boo nekkee ci jamonoy jafeñ-jafeñ am na ñoo xam ne ay mbaal lañu seytaane yabal pour nañ la xëcc ngir yóbbu la ca la nga doon bañ su ko defee nit ki lam doon bañ jamono bi amul fitna boo muytu dana ko nangu jamono yi fitna te lépp fitna jéeg ko yóbbee bokk na ci li nga ci mën a déggee mooy ak lu mu métti métti même boo doon waddee ci asamaan si di xur yi wadd waddal nga daanu sa yax dammata waaye na fekk nga wax dëgg ak lu la mën a gaar ci àddina boo yaakaare ni wax lu dul dëgg moo la ciy génne tey bis dana ñëw suñu borom fayeekuwaat ko ci yow gëmal ni borom bi subhanahu wa taala bu la musalee tey ngir sa kàcc bi nga kàcc bis dana ñëw kàcc ba dana la talaat waaye gëmal ni nit bu nekkee ci ay situation yu metti ka ko gën a jege ka ko gën a jege wala mbokki jullitam dañ ko war a jege di ko dimbali saxaaba yi nag sañuñu woon def loolu ndax yonti moo ne bu leen def abu xataada sa doomu baay ak lim lay jege-jege xam ngeen ne abu xataada lii muy def nii xam ngeen ne bu amoon la la ko gënal du waaye nag loola gënal na ko ndax yonente bi moo ko digle sallallahu alayhi wa sallam waaye ki nga xam mooy talxat ibnu ubaydillah njekk gi mu def nit da nga ko fekk ci ay xeeti jafe-jafe nga xittali ko dimbali ko su soutenir ko ci fu mu nekkee ci ay problème kooka du la fàtti mukk bu dee gor la ba yowmal qiyaama bokk na ci liñ ciy mën a jàngee mooy alquran day mbokk yi wàccatu tey ñu bari ci ñun nag ñi ngi wàcc def ci ay njaaxum yu bari njaaxum yoo xam ne yàlla moo la sàng mbalaan sutura rek laajal sa bopp ndax mbalaan moom suñu borom dana la ko sàng ba yowmal qiyaamam soo su alquran doon wàcce de jàpp na ni ñu bare bari ci ñun mbokk yi fitna jumel ni dana leen daal ndax am na loolu def nga ko muy njaaxum gu rëy kenn yëgu ko waaye yàlla yëg na ko ba noppi noppi ci rek kon alxuraan wàccatut nit ki nay dëkkee di tuub tey moytu tey sàkku ndimbal ci sunu borom subhanahu wa taala rabbana la takilna ila anfusina tarfata ayn wa aslihna sha'nana kullaha wa ajirna min xizyi dunya wa adhabi alakhira allahuma asturna fawqa alardi wa taxta alardi wa yawma alardi alayk nacudu bika min alhammi walgammi walajzi walkasal allahuma astur uyubana wa amin rawacatina wa axfadna min bayni aydina wa min xalfina wa an shamailina wa an aymanina ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آت نفوسنا تقواها فإنك خير من زكاها أنت وليها مولاها نعوذ بك من الهم والغم والعجز والكسل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد